kenn ku ci nekk yéen booy mën a nekk ci àddina ñi lay safoo bu baax di leen jaajëfal ci ànd ngeen di ànd ak ñun safoo jigéen ñi safoo ak fële mën di nekk ci àddina ñu leen di eh, eh, bu ko defee eh, tey mm, mbokk yi ni lay demee dafa am tey xam nga tey je suis flatté dañ ma yàq tey mm, tey dafa am ay ndaanaan yoo xam ne ma dox mën mm, ñoo seet si auditeurs yi ñu wax mën a ànd ak ñoom découvrir seen ay yëngu-yëngu donte ni seen temps dafa teewul ñu ak ñoom am na lu nga xam ne fas yéene ñëw moo di la jéem a def li nga xam ne moo émission lu muy tuuti tuuti ndax seen temps dafa luñ ci bëgg mooy jaay hmm, ale ñoo fa ale sëñ bi noo def sant sant mbaa lépp jàmm alhamdulilah alhamdulilah ñu sant ko gars yi bu ñu sëñ bi xam na ne la ñuy dégg <laughs> waaw noonu lay noonu lay noonu lay demee eh, di déggee ñëpp euh, di ziar ñëpp ah. ñi nga xam ne sant bi ñu ngi déglu euh, RFM <laughs> seet si wi tur bi mën nga ñu ko wax. bon mën nañu wax euh, sama tur euh, Moustapha Baro la. Moustapha euh, Baro tur artiste bi Teuf Connect. Teuf Connection Teuf Connection yow ci lan ngay yëngu. ok mën nañu wax que ni bon je fais de mhm. en même temps tamit je fais de la promotion mhm. en même temps je ok voilà yow artiste complet boobu dégg naa parce que loolu ne moom waaye bu ma làkk quoi bu ma nëb seet si ñu fii ci RTS Kolda voilà but euh, euh, bi euh, le but tactique bi. ok tànk yi bon salaam la. parce que je suis un natif la Casamance. oui plus particulièrement ñaari eh, produit produit yooyu boobu noonu benn ci ñoom Moussa laay àndal eh, mu jox ma track bu njëkk bi ban la hmm? bon track bu njëkk bi euh, ça parle de la pauvreté pauvreté ça parle de la pauvreté ñàkk hmm, hmm. musal ñàkk est-ce mooy andi moo andi mooy mooy mooy lépp waaw loolu la parce que tamit lu tax lu tax ma génne euh, produit boobu noonu j'ai vu que ni euh, l'immigration clandestine tamit yow da ngay nekk jeune nga am jom bëgg a liggéey nga am mhm. ay contraintes mhm. te pourtant pourtant euh, am nga am nga am nga validé dan lay xam ñu naan bëggoo liggéey dëgg la euh, alors que tel n'est pas le cas mhm. tel n'est pas le cas peut être mën naa am condition ñoo réunirul de telle sorte que tamit yow euh, nga bëgg a exercer wu loolu yëpp c'est des problèmes c'est des problèmes moo tax son bi boo ko dégloo bon wax naa problème en même temps tamit joxe naa ay solution pour lutter contre la pauvreté mais Euh, boo xoolee son bi dama si wax comme par exemple la pauvreté mhm. mais dama jël plus particulièrement comme euh, góor ñi mhm. góor ñi laa wax euh, son yi ñoom ñooy génn lu bëri mhm. ñoom ñooy sonn moo tax ma jël exemple ci góor ñi mais damay ragal nag jigéen ñi xaw a def <laughs> ñu ni def connexion dafa def discrimination alors que bon mun naan waaw mun naan jàmbaar yi jàmbaar yi ñoom ñooy jàmbaar yi jàmbaar yi ñoom jàmbaar parce ñoom la dëgg ji weer ay ca dañ koy dem déglu ko ak euh, euh, euh, bu dee hmm, am na son bi hmm, c'est vraiment dommage que boobu noonu track boobu sama waay joxuma ko hmm. joxuma ko sama waa ji Moussa Banora mais en dehors de loolu track boobu am na beneen track boobu am na génne mooy ok léegi konk boobu noonu moom xam naa léegi parce que pauvreté bi tamit bëgg naa nit ñi léegi dama koy dama koy def mais am nga ko koy clip

yagge weeɗi haa remoyo kala tam doon kasoom alum wax mbaɗu waxi do rewme loob dëkke tolof tolof gis gis yi ute ku nekk néegi jël sa moroom rey ko daggate àdduna du dox ñi dëkkee foofu yaayur doom talu yor doom bim moom ngir xaalis ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor gore ba dee gore ba dee donte dan may ree boo toogee teguloo togguloo njaboot bi saw di jooy woy yaay woy baay woy yaay woy baay ñàkk jigul góor ñàkk jigul góor gore ba dee gore ba dee donte dan may re dëgg loolu euh, euh, comp la comp la hmm. euh, ci loolu noonu mais dégg nga dégg naa ci biir kàddu yi ñàkk ci góor hmm. ñàkk ñàkk ci gul góor métti na hmm. góor moo tax nga moo tax sànq nga nga nga nga accentué wu trop ci li nga xam ne moo di góor ñi góor ñi gore ok moo tax ma ni moo tax ma ni gore gore ba dee donte dan may ree am na feneen fu mu naan riiru ñàkk jolli na wa mën na xiif rappelé ma mën a këru taraangeer na sag ñottane sellukaay bi moo ñu ëllëm ñun ñëpp ñu ànd gëllëm ndaw ñaa nga tuggal di jënd ak jaay ñoom ñëpp daw nañu gàddaay musulman jin bu oos yaa ngi rêve nekk boos li la sant mooy nga job bul dof yaa ngi xob yow mii di xoslu yàgg sa jin bu oos da nga war a bàyyi loo am jënd ko trop wala nga naan ko sàngara da nga war di xoslu wala sa ñàkk loo sa biir poos mën a doon plus mën a doon alalu ëllëg maan li la sant mooy nga job est-ce que est-ce que respect ci hmm, euh, euh, loolu noonu

am seen benn naatango mi ngi tuddoon Fatou Gueye Fatou Gueye Ndiaye. Fatou Gueye Ndiaye. RTS la doon liggéey caméra caméra woman léegi dafa mm-hmm. amoon ñoo xam dañoo defoon benn version mbalax en plus ñu ñoo defoon version rap bi mm-hmm. mais jox woon na RTS mais en plus j'ai j'ai vu que groupe laa nekkoon mm-hmm. je me suis dit que naa jël sama euh, naa jël samay euh, kii samay euh, li ma jotoon kii foofu noonu pour gën a jàllale message bi parce que tamit dafa tombé tamit ak benn élément gelongal mu décédé woon ci ci kii noonu ah <laughs> ci yoon bi waaw nag euh, juste boobu mi ngi tomboon tam man maa ngi doon def euh, ay recherche mm-hmm. en même temps génn def piéton yor vidéo euh, di di di balancer di di def ay interview di préparer son bi en attendant mu génn studio mm-hmm. bon boobu maa ngi prévention bi prévenir guérir vigilance prudence y a trop d'accident sur la route mm-hmm. maintenant il faut que ça moo indi boobu ali ci biir dëkk bi ñaata nit ñoo doon ay njëriñ Cheikh Tidiane Ndiaye bokk samay lim metti na yenn ñaar bar la am xol yi ak xel yi ñoo feebar war nanoo def lu bar wala mooy yeex kon waref la ak gar teuf connection tan si ay kàddu fagru so gën faju sa forcé looy mel ku nekk formule 1 bam jar ngay def excès de vitesse am ne xay tali bi la boo la yóbbee bii la desee maa ko teewe di ko def nongo daara bu doon dem daara te xamugul dara ci biir daara dunia karapit moo ko fàdde lii duma ko fàtte boo yem si béton bi may ko mu jàll bu ko jaay doole da ngay daan doole tout ce rouge est dangereuse donc feu rouge égal stop il ne faut pas brûler les feux de signalisation xool bu baax mi signaler policier bi ak gendarme bi dañ leen teg ngeen dox yoon bi ok. junj la junj la junj la dañ leen fa teg pour dox yoon bi kon euh, halte au surcharge ak yenn yëpp ak yenn yëpp ay non di la mais son boobu non euh, euh, noonu tourné nga clip bi. Wa tourné naa clip mi ngi. képp ku ko bëgg mën nga dem YouTube. en plus tamit bon distribué naa ko si rajo joxe naa ko mm-hmm. joxe naa ko Walfadjri euh, mm-hmm. joxe naa ko TFM mm-hmm. joxe naa ko Sen TV. Mm. joxe nga ko TF joxe nga ko euh, RTS euh, ci rajo yi yaakaar naan sam waay mi ngeen moom. waaw boobu boobu jox na ko mm, noonu dama koy jox gars ñu déglu ko bu Belirli bir farklar yaratır. Toplum 哇哦！